li sa sa galgal ak sa sa plonkal lépp laay yëkki benn loxo tey Omar am nañu buga dama kaa dama kaa dama kaa dëj mu toog ah. toogal fii ooy sonn na ngeen balaa indiwul rek trois bi moo fi <laughs> rek muy wow nyari waaw ñaari promoteur yaa ngi noon bi sama coach yang ingin noon doom ndey job Diop sum production waaw ngem bu samedi ak dimanche lañ am nii ñi ñëw sama lamb dañuy toog xaar ñu raxas feccali mu del ñu toj Adrien Senghor xar ko ñaar dóom ko waaw porte yi rang muy gaaw aja ah ngémb a ngi nii de ngémb bu Diofior ngémb bu Diouroup ak ngémb bu Jaxaaw ñetti dee yi Diofior Diouroup aja rang muy tayé ko du yomb da aja wa ak sama patron gub sen maa ngi lay ziar wa yow kenn gënu la ya jël 550 mille jox dama tagal lam barki alcorane lam ji ferewuma ci dara monsieur le maire ñew wa li ngemb la way aja 100 pour cent bu jaxaw ngemb bu jox ak jurum waaw rang muy gan buñ kaane xaral géej bu muy xam xam léegi ñun ñu am visa na xaaruñu ñu xaar pokar ñu dem pokar ñu dem waaw aca espagne am nañ so de soy aquí en el aeropuerto para viajar a la españa vale gracias waaw sara sa doom ndaa ngi demati de waaw borom jaxaw ak la ak njëndal ak ajam aca bugar li tv desal senegal yo maa ngi dem yow xaaral na toogal moom defar ngaan